الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن gannaaw ba ñu santee yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa ñu ngi nuyu it bokk jullit yëpp di nuyu bokk ummatu islam bi yëpp ñu ngi nuyu it bokk yi nga xam ne ñoo ñoom ñoo bokk pas-pas di leen ziar di sàkku ci ñoom it ñaan alhamdulilah rabi alamin eh, comme ni ko kan waxe at mu ne it dinañ fi faral di jaar suñ fi jaaree it li nga xam ne moom lañu xam te tollool ko ci wàllu xam-xam wala ci wàllu wax lañ ca xam danañ ko jotti di bokk yi comme ni mu ko waxee it noonu la tëddi guddi it dañuy màggal yonent bi sallallahu alayhi muy ngénteem comme ni ko mag ñi daan waxe ñaari dëkk yi nga xam ne ay cheikh lañu te yàlla boole leen boole woon it mag ñi tax ñaari dëkk yi di cheikh mag ñi tax ñaari dëkk yi di cheikh eh, muy cheikh bu kunta ak alaaji malik kenn ku nekk dafa am ci guddi màggal gu yonent bi sallallahu alayhi wasallam bis boo ca taamu ñoom ñaar ba ñu waxtaanee diisoo déggoo ci kàddu alaaj Malick taamu judd gi juddu yonent bi digal ko ci màggal ci juddu ga Cheikh Bou Kounta ci yonent bi ci wàllu am na wàllu woo xam ne maam lañ ci moom ndax suñu digganteeg fëxër fukkeelu maam lañ ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa juróom-ñaar kon dañuy daal di doon maamam ca foofa kon nag sët su ganee àdduna way juróom am na sañ-sañu xaar bis ba dellu ci mu tudd ko moo waral tudd tudd juróom-ñaari fan wala juróom-ñetti fan yi ñuy def ñun nag booba lañu taamu bàyyi it Alaaji Malik ci bis bi mu taamu kenn ku nekk la nga taamu nga màggale ko yonent bi pour bañ a tegit nit ñi eh, jalti jalti fitna ndax su fekkee ne dañoo bokk bis rek fitna mën a bari taalibe yi ku ci ne bëgg a dem ci ci bis yi day day mitti loolu moo waral ñun ñuy def ngénte bis boobu nag la ñuy màggal bisu tey bi alhamdulilah rabbi alamin ju ah, jullitu yàlla yëpp fu waay bokk jóge nga fa ñëw màggal bis bi bis bi du bisu tarixa bisu yonent bi la te bisu yonent bi bisu jullit ñi la te suñu borom la mu wax ci diggante jullit ak moroomam tudd fa tarix jullit la wax jullit ay bokkam innamal mu'minuna ixwatun jullit jullit ay bokkam dégg nga faasu benn axweekum da ngeen yéewanal bopp gi nga xam ne moo tax ma wàcce leen ci kaw suuf ngeen doon ko bopp bu boobaa li nga xam ne suma xëywal la ma mën leen ko dotti muy wattaqullaha la'allakum turhamun delluwaat wax ci jullit ak moroomu jullitam wax tasmu bi hamdillahi jami'an wala tafarraqu waxul taarix yi mooy leen ci si buum dafa ne julliti yàlla yi mooy leen ci buumu islaam te bu leen taxali ko wuy sama man yàlla yooyu ku ko xam sa digganteeg sa moroomu jullit daanaka tariixa du la boole am na benn suma benn góor bu baax buy wax ne tariixa yi yombalal jullit la rek seen digganteeg lañuy ñuy jaamu ci suñu borom day wax naan jëlee nit ci tariixatul xaadir ya yóbbu ko ci tarixatul eh, ya yokkoo dara diine walla nga jële nit ci tarixatul tijaaniya dogal ko ci xaadira wala murit yokkoo dara diine kon kenn ku nekk bàyyi ko fa fa mu ne mooy namu diine diine la koy yokk nga fekk koo xam ne du jullit gëmul yàlla gëmul yonent bi nga fexee naxanteeg moom ba tuubloo ko gëm loo ko yàlla gëm loo ko yonent bi loolu mooy diine kon alhamdulilahi rabbil alamin ba nga xamee ne ah, loola mag ñi dund nañ kook seen i taalibe dund nañ kook seeni i bokk kon ah, ñu ngi sant yàlla waat di delluwaat di sant bokk yi fi ñëw yëpp di sant jullitu yàlla yi di sant it ummatu islam ci daraja Yonent bi salaam ah, di sant tamit Thiès 24 comme ni ma ko waxee ci suuf ah ah ak Dabakh FM at mu ne nii ngeen koy defe su waxtu wa jotee li nga xamee ne suñu kàddu lott na pour yegg fa ñi ñëwul mën ko dégg Thiès 24 ak Dabakh FM ñoo ñu koy jàllale ba ñi ñëwul mën a dégg ne kat Ndiassane lii ak lii ak lii moo fa xew waaw ah, loolu nag ñu ngi leen ci sant leen gërëm di ñaan yàlla mi nga xam ne mooy mayta dara teewu ko ah yàlla na def boobu promotion bu raw seen jort ci eh, média bi nga xam ne moom ngeen yor di ko couvrir ci jullit ñi ak ak adduna bi yëpp sax yéen ñi nga xam ne it yéenay porté loolu yàlla yàlla def lu raw seen jot ci loola. Oh. Oh, waaw am na ci yu yoo xam ne wax dëgg sëriñ bi mi ngi siy sant ci wàllu état bi mais am na ci loo xam ne it am na tuuti jafe-jafe loo xam ne war nañ ci bàyyi xel ndax ba ñu demee CRD national euh, li ñu waxtaanee woon foofu ci chef secteur yëpp ci kanam ministre de l'intérieur ak ñu ne doléance yi nga xam ne souvent daf ñu faral di arrivé yooyu yëpp exposé nañ ko fa dégg nga am na si loo xam ne nag saafarawu na mais am na si loo xam ne ba léegi loolu a ngi dof démb ba tey toog nañu 48 heures yoo xam ne ndox xaw na fi manqué soo ubbee sa robinet doo gis dara tuuti lay xel li pour nit ñi naan toog sangu doon na fi tuuti doon doon na fi problème kon façon yooyu aussi su fekkee dañuy nekk ci jataay autorité jiite ko ñu wax mu dégg porté loolu ci ki nga xam ne mooy kilifa gi ñu respecté yu mel noonu aussi da dafa da dafay am solo dégg nga euh, am na beneen côté boo xam ne aussi ñoom la waxoon manqué na ci ñoom tuuti muy euh, Ageroute ñoom it la waxoon ne tali yi dinañ ko réformer yenn yi yenn yi pax-pax yi fa am it dinañ góor góorlu mm, wax dëgg yàlla ñoom it seen bas manqué na mais su weesoo ñaari secteur yooyu daal secteur yi ci des yëpp wax dëgg la góorgóorlu nañu ca la ñu waxoon yooyu sëriñ bi jotal nañ ko sëriñ bi mu ngi leen di gërëm te yooyu secteur di leen ñaa di leen gën a ñaaxaat secteur yi nga xam ne la ñuy wax it souvent day manqué ci seen yi wax it sëriñ baa ngi leen di ñaax pour wax yu ñu waxat yi te jullit la muy wax su ko waxee ci nawleem na respecté loolu yàlla bëggul jullit wax lii waxtu wa yegg ci nga war la nga waxoon loolu suñu borom bëggu kon su ko defee yooyu daal mooy li nga xam ne ci wàllu dëkk bi moo ci xaw a manqué tuuti